kon mbokk yi ñu ngi ko waxee nag gis ngeen Amath Dansokho fexe na ba génn lu mel ay café génn na ay yére génn na benn boîte tamit euh, li nga kon nag suñu père Amath Dansokho ñu ngi koy remercier ci mbënn bi ni nga xam ne noonu la ci participer dañuy dem seeti keneen ndax tey ba tey am na ñoo xam ne am nañu seen doole am seen làmmiñ am seen mën-mën pour ñëw jàpp euh, côté Gabon Gabon tous les sénégalais yi nga xam ne ñu ngi foofu ca Gabon ñu ngi leen di ñaan ñu jokkoo ku ñaan Omar Sow Omar saw nag numéro téléphone ñu ngi koy bind léegi Ndey Ndaak mu ngi foofu euh, ci Dakar ne dort pas ci soirée Pape Diouf bi nga xam ne ma la fa la dem pour couvrir ko moom ci boppam nag euh, ak Oumar Sow ñoo nekk Oumar saw numéro téléphone mu ngi foofu képp koo xam ne gabonais nga bëgg ñoo dimbali na ngay woo Oumar Sow ci numéro boobu nga xam ne moom la ñu bind nekk ca Gabon dafa naa ne téléphone bi numéro bi léegi ñu bind ko tonton mag dafa naa ne waaw bu numéro bi génnee rek mun ngeen ko woo moom Oumar Sow boobu mën a ko moom foofu ca Gabon pour am loo koy euh, bu dee nag ci yeneen réew yi nga xam ne amuñu représentant vingt heures incha allah ibbi nañ téléphone bi dina am débat bu mag ne da ngeen mën pour mun a indi li nga xam ne mooy seen participation waaye ci question yi nga xam ne euh, ci euh, euh, jàppande bi nga xam ne moom la ñu wax ne Omar Sow bi nekk ca Gabon moom moo fa représenté TFM spontanément nii pour mun a récupérer dons yi. bu ñoom nday ndaak euh, di ñibbisi fii ci Sénégal ñu jox ko xaalis boobu mu daal di koy indi teg ko ci loxo ñi nga xam ne ñoo ñooy kilifa télé bi kon ñu bantuwaat ko numéro téléphone bi dinañ ko bind léegi képp ku bëgg a jokkoo ki nga xam ne moom mooy Omar Sow da ngay def double zéro 241 07 92 def fa 98 23 di nga ko mën a jot foofu jox ko yóbbali li ñuy def nag mooy seeti keneen keneen kooku mooy kan Tonton Mat indi ko naa def yéen a jàmm li daal wax député du peuple fii laa ñëw élection yi day votal leen ma ngeen ju njaañ ma ba yàlla ma dimbali ma génn yu mel nii ku am ku mel man du ko mën a gaas dama ne nañu ko leeral mu ne dañ ko leeral mu leer du ñu dof am nañu xaalis nañu génn xaalis bi dem génn moto pompe yi nga ci ndox mi sànni waaye dafa fi toog naan waaw li Abdoulaye Wade ko liggéey woon Abdoulaye Wade jaaroon ne dama ne Abdoulaye Wade mi def rek na ko dama la àdd li muy def def na ko yàlla daal moo wàcc sawam dama la ñuy ci boppam dañoo toog ñuy xool dama la gaaw leen génn ndox mi man de sama militant yi nga xam ne ñoo ma fa tere ca Kaolack te dégg naa dafa mbënd man Kaolack laa jëm waaye fi nekk damay Dakar damay Mermoz dem fi nga xam ne ministre fa lañ dëkk dana la leen ngaccal seen ndox du ma ko def du ma ko def ñoom nañ ngeen seen gaas man dama pare naa pour jaay sama bopp rey sama bopp ndax askan wi waaw waaye kuy dangay génn plongé nga xam ne yow yaa ngi plongé alaaj Diouf waaye gënee dëgg mooy man waaye fii di nax nit ñi naan naa waaw fii la xarit jaar fee dama ne na leer ma ne fi laay dugg ah jàppale ñi nga xam ne eh ana ana ana li ma daloon eh mais de xam ma fan mooy sa kër fii ah man nga ma daloon xaaral ma war la lépp laa lay génneel waaye ma bu dee bu dee waa rek ah waa benn yaakaar ñoom Moussa Niass ku ma ci xàmme sa kër dugg di jéem a ngacc ba gis fa la Moustapha Niasse wala Moussa Macky Sall dama ne damay jëlaat eh, eh, eh, la ah mais damay dem sa wóorul ba jaaree deelee ah ah ayla bismillahi rahmaani rahim ba catu de xam ne naan yàlla na ma la sama laa waaye xam naa gee waaye in waaye moom dafa la li may daj moom la ak xool eh, am na lu ma daj dee am na lu ma daj dee sama ndey am na la yaaye lii lan rek dama yeew Macky Sall kaa def li man boo gën a di ma xool yaag ma dem fay yéen di ma xool waaye eh, waaye eh, lii day Ola, kiranane. Pangol ni. Sundin. Ah. Wal. Wal. Ah. Ana sa kala. Ana di sa kala ni. Sa kala sa kala. Wal. Wal. Wal. Apa kesal? waaye waaye dama dama Macky Sall kaa li man xam nga lii Macky Sall mënu ko lii Macky Sall mënu ko waaye lan la eh lii lan la yow man fi mu dugg ko est-ce que eh lii lan sol ba gisoon xam naa ne dañu ko ma dee ma génn pistol ba am tëb sama gox dee voilà dama teg ko nii nànk àdduna wóorul dawale dama teg ko nii nànk nànk nànk nànk waaye nànk waaye voilà émoyé émoyé waaw wuyaay ah baax sama militant la ndeysaan ay yàlla ñampe <laughs> yaa ne war naa ne ko de yàlla plat <laughs> xam nga dama génn kenn du ko génne eh, li mu sabaa des mënu ko yàlla saa yàlla yàlla dañu ne miiru Youssou Ndour dafa daanu <laughs> kon kon Youssou Ndour ci mbënd mi la bokk <laughs> dafa saale yow sa ministre bi ci mbënd mi la bokk miiru këram bi dafa daanu mu ngi nii ci soxla bi waaye ba léegi xaaral ko génn naa beneen xaaral ma gis la